préfet waxtaan nañu ak moom mu wax ñu lu leer te limu ñu wax it lu ñu ànd la ndax rew mi président de la république mo def décret nañ ko set setal loolu lu ñu d'accord la te lu ñu ànd la te préfet bu ñëwee it dañ koy and ak dañuy and ak moom si loolu yok ko dimbali dolel ko ci loolu mu woon ñu ne kanam gi dañ koy dindi si jamonoy loo bi mu fi nekké préfet dindi won nañ ko ñu defal ñu délimitation benn weñ bo xamné ba tay dindi wuñ ko kenn su ko laal lepp nak lu fete ci kanam ñun ñoo togn lepp lu fete ci ginnaw ñom ñoo ku ko laal moo ñu tooñ si loolu lañ jàpp xëy nañu di ñew di set setal Souleymane Ndoye am na ñu mu waxal xawma kan la limu wax mu ne comme que non lañu raatare daral bi yépp loolu mo indi yëngu-yëngu fi nit ki nak fi ngay dundé de 37 ans ci ren nga ñew tay nga ne ko da ngay dindi sa dund bi yow man yow man ma dund yow nga dee kooku day taaw xale yooyu juddoogul te tekk fi tey di tetti tegte il faut ñu fipp non jàmmaarloo yi moo ko andi moom ndax man mii di autorité nekk naa fi conseil municipal deux fois bon xam nga autorité daal biir dëkk bi mais moom maa ko jëkk nekk autorité xam na ko moom bu ma di nekk kilifa comme moom di wax ak moom war na ma tontu lu dul lépp day jóge fii boo ne lépp day jóge fii nag ñi nga fiy jëlee tax amoo foo leen yóbbu seen bakkan lañ si jaay ndugg bi ma jógee marché fan yëpp dañoo amoon dëj ndugg bi ma jógee woon marché ndugg yeeg bagage yeeg awsa yeeg yëpp fi ñu na xool tey jii ñun du fekkee nekku ñu ñu xool suñu doom yi ñu bàyyi ci kër ga tey jii ñu am waroon a añ tey ji te duñu añ wala reer te duñu reer ñu war a xëy suba ndékki te duñu ndékki fuñ koy jëlee service d'hygiène day ñëw dañuy ut ay kayit kayit lañu ut man damay ut kayit chaque six nekk yu nekk ñëppay ut kayit barki dem boo jaay lañ fi ñëw ñëpp a dagg kayit samay kayit a nga nale waaw dañuy fay jot heure ñu xëyee dañuy bale ñuy bale waa maire bi duñu balee fii waa maire bi bale ñun ñooy suñu bopp fi ba mu set jël tuuri ca poubelle ba fee ñoom xam nañ ko ñoom